lu yàgg du ngeen sama baat li wax minute de silence mais comme minute de silence baa ngi ci xol bi pour ne pas trop vous retarder euh, c'est pour vous dire que décision extrême et responsable bi suñu client Ousmane Sonko jël tey ci suba fexe ba ñun avocat yi ñu yëg ci loolu la sama xel nekk sama xol ak ñun ñëpp mu nekk ci ñun ci ñun surtout que depuis bi nouvelle boobu commencé propager on apprend que dans la plupart des bien dans la totalité des maisons d'arrêt du Sénégal détenus rejoignent le mouvement grève de la faim c'est une façon de vous dire man personnellement parce que du ma engagé keneen yàgg naa défendre ay doomu adam. mais ki may défendre nii saa yu ya ma yeewoo rek damay ne alhamdulilahi rabil alamin wolof eh, wolof day ya, wooyee avocat layookat mais définition dëgg avocat ci wolof mën na nekk farandoo ndax avocat dafay far ku nekk ak sa bàmmeel de yaa xam ki ngay faral parce que bu dee da nga gis naafeq di ko faral li top na naafeq boobu mo lay top yow le châtiment de la tombe xam nañu mooy lan mais boudé idée yi muy défendre yéen ko bok ah, yaakaar naa ni mën nga dem jusqu'au bout tey jii ñu ngi xéxal Ousmane Sonko pour la préservation et la défense de ses droits fondamentaux parce que xam nañu yoon bi mu nek ci njëriñu Sénégal comme demba ki fi nekk tey ji Macky Sall bi ko yàlla nguur gi dañ ci kontaan jàpp yéene bu ñu ci moom tey ji yéene bi gis ci Ousmane yàlla na ko yàlla bu mais ba gis euh, ñun kenn man avocat bu ancien trop mais bi prêter serment Ousmane 14 ans rek la am donc tey ji bu ma ak 35 ans de bar mu ngi ci 49 ans dem ba man mu jaral ma lu ne c'est parce que kii convaincre na ma parce que gis naa lu ne balaa moom gis nañu lu ne parce que ñun yàlla dafa def dañu prêter serment commencé génn Afrique on a fait pratiquement tous les pays de la sous-région ak beaucoup de pays de l'Afrique centrale dem nañ ba France bitim réew Belgique fu nekk la Haye tout ça gis nañu lu ne pour vous donner un petit exemple c'est mon premier voyage d'avocat jeune tout jeune avocat mon tout premier voyage dama dugg avion bokk avion ak Sidiki Kaba mu ne ma booy looy def fii ma ne ko suñu dëkk bëri laay dem gars yi ñoo ma woo foog ma dem défendre leen mu ne mais tiens man tam fa laa jëm parce que ñoo ma fa yónni ñu dem bu ñu àggee ci dëkk bi di def li ñuy wax euh, visite de yi ci bâtonnier parce que avocat boo ñëwee ci dëkk da ngay dem nuyu bâtonnier bi toujours dañu ñëw ba ci buntu bureau bâtonnier bi Sidiki Kaba avocat bu mag la tabaarkalla mu ne ma gis nga photo bi may gis ci bureau bâtonnier ma ne waaw mu ne ñun dañuy tere bureau bâtonnier wala bureau avocat postère au président de la République nek ci parce que ñun nous exerçons une profession libérale indépendante mën naa nga def benen photo mais photo président de la République amuñu lien organique ak fonctionnel ak état donc ñun waruñu dugg ci bureau bi bâtonnier bi am jàkkaare loolu wa du ngeen ñew ñu ne ko non baax procès bobu ñu euh, dañ fa ag dëkk bobu désert juridique la tellement ñun en tant que sénégalais on a apporté des changements bon tay sur le plan des libertés dëkk bobu jël na peut-être 20 ans d'avance ci ñun yeneen dëkk yu dem dañ daan dem ba au début bu ñuy ñëw en tant qu'avocat sénégalais au début des procès ñu ne dañuy soulever exception dafa doon jaaxal juge juge dañ ne yéen lan mooy exception yéen yebaate ngeen di yéen procès bi ñu war a dem ngeen nooy exception boobu maa ngi leen di déglu donc boo waxee exception expliquer nullité procédure yooyu dañuy gis seen bopp mer ba nga xam ni affaire d'état la doon doon ñooñu ñëpp tey jii dépassé nañu tey suñu njàqare mooy li ñu dund ba Ousmane dund ko ba tey jii mu jël décision bii neen day def grève de la faim Ousmane 55 jours de ko tëj këram ci ay barricades te teguñu ko fenn muy góom bi nga xam ni man de personnellement gis naa ko Nigéria may défendre Abiola quelques jours gis naa ko boobu bëgguma tudd tur yi am na dëkk yu mu am gis naa ko dund naa ko euh, mais li ñu gis Sénégal dafa réyoon ba nga xam ni dañu fonk doomu aadama fonk famille famille moom dañ ko mës a dégager du champ vraiment du harcèlement politique famille bokku ji la famille est sacrée tout comme le domicile il est inviolable il est sacré mais fii la ñu gis ñu tëj kër tëj nit ki ci biir kër gi tëj jabaram tëj doomam bi léeg ñu dagg courant bi léeg-léeg ñu coupé ndox bi léeg-léeg ñu coupé euh, communication internet ñu ko gën a jege mënuñu ko gis mënuñu sax wax ak moom téléphone mais sëñ bi loolu métti na et deful benn réaction au Sénégal comme quoi on a un peuple extraordinaire parce que loolu si yeneen dëkk émeute la indi su bu amee Congo euh, Zaïre bi euh, am na beneen Congo bi mais ay coow la indi am na Centrafrique mais fii nit ñi dañu ne tekk parce que li ñuy wax sénégalais dafa dal et dal nañu muñ nañ ko mu metti nag ku ci nekk gómboobu moom ah personnellement de ku dee nit parce que koo xool ci yow ñu ñu def la nii sa kër problème bu mag am na bref lii yëpp am na indi ay naqar yu metti barricade yi tey le 30 juillet le 30 mai Youssou Camara mi door a wax léegi maa moom ñoo bokkoon oto on a été waxuma gazé mais li xew jarul ñu koy wax par dignité soxloo ñu ci dellu mais ñun xam nañu man personnellement xam naa parce que yàlla moo bañ rek mais tey jii heure mënoon nañu wax y'a deux mois jour pour jour lii amoon na fi te ñu ko def ñoo ko tey teyef la woon pour bu dire fi ñu toll parce que ñun suñu waay lañu magistrat ñun ay ñun ñoo bokk njaboot bi benn lañu moo tax lii ñuy wax ni waxuñu ko pour magistrat yi parce que magistrat yi leen war a wax xam nañu toujours ñu wax leen ko ci biir prétoire bi Ce que nous le disons toujours, c'est que nous nous battons pour une magistrature libre et vraie. La magistrature, la vraie magistrature, qui est debout, qui assume, qui fait très bien son travail et qui est payée pour faire ça d'ailleurs. Et Inch'Allah, on se comprend parfaitement. Nous euh, problème avec nous. Entre avocats, même chose, nous sommes Bon, donc il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. nous peuple mënuñu toll ci moment bu mel nii mel ni dara amul parce que Sonko biñ ko barricadé këram teguñu ko fenn amul këyit amul dara parce que booy ba def booy def assignation à résidence d'ailleurs man li du ma ko assignation à résidence dama koy des assignation à résistance nit ki dafa wootee résistance nga ne akoon ah kaa ñu assigné la yow dootoo résister parce que li ñu koy toppee yëpp di appel à l'insurrection c'est faux appel à la violence c'est faux c'est des appels à la mobilisation il a un appareil politique machallah, qui marche très bien. Il a beaucoup de monde derrière lui. Il les appelle constamment à se mobiliser. Appel à la mobilisation. Moi, je Macky Sall def contre euh, Abdoulaye à l'époque. le président mais en tant que juriste il appelle à la mobilisation il a un peuple derrière lui il a des forces euh, coalisées pour le ko mais il les appelle à bouter dehors le président de la rue du palais Lors du saga du insurrection du darabou civilisé xam démocratie mais le président il est génnee sa galère yooyu am pexe ah di xaar bu ñu naa leen coup pied nga xam fële ngeen di dal mais c'est comme ça la démocratie ñu avancé mais bëgg ko def ay dossier denc ay ay woy ba ci woyu joolaay Sonko Binala yooyu yëpp léegi ni ñu ko bëgg def ay acte insurrectionnel mais attention on a un gros problème te problème boobu foog ñu régler ko mais niñ ko bëgg régler ni c'est pas beau demb ci bureau doyen des juges la ñu yenn parce que biñuy def réquisitoire bi yëpp je ne viole pas le secret de l'enquête mais on nous a dit que paré nañu doyen yéen régler lay xaar dañuy inculper ñu ne bismillah ñu bàyyi li ñi def yëpp ñu dem fa la ñu nekk bee sonn bërki aussi yow mal assura bi ñuy jàpp Sonko fa lañu nek mais doyen xalaatuñoo ni bu ñu koy saisir diko désigner ce serait pas avant lundi mais donc il nous a dit lui-même que dañ ko woo dañ ko réquisitionné na xaar ñun tam ñu tok di xaar bi ñu ba xamni ñom mbir bi mënul pare mu woñu né kon demander les renvoi ñu né ko ñun ñu demander renvoi yow nga woñu ñu mais jëlal sa responsabilité jëlal sa responsabilité nga ne yow renvoyé ñun demandé on est demandeur rien du tout Nous ñu tëjee suñu violer tous nos droits Nous ñu ci une ak mission occulte parce que c'est très grave hein. le moment est venu daañu parce que mission occulte gendarme et ak homme de sécurité xam nañ li ñuy mission occulte mooy yow nga yore téléphone di téléphoner di di filmer nit wala caméra parce que y a des textes qui organisent la section de recherche par exemple la personne qui travaille à la section de recherche elle est habilitée par des textes pertinents et décrets. Nous y les nit ak nous les filmer nous koy photo noo jël ay renseignement ci nous ak s'il le faut mais ce que def waroo feeñ parce que soo feeñee tu es grillé monotone avec nekk agent de renseignement donc yow mën nañ la sax poursuivre pour pour euh, incompétence mais nga ñëw téye nit qui... mais sonnal ko huit diko photo diko filmer di photo jabaram di photo photos, diko togn diko def ma tay mais attends Ousmane dafa nekk nit ku civilisé ku xam valeur doomu aadama mais mënoon na def lu gën a doy waar mais que dafa xëcc téléphone bi tout ça non yooyu ay clause de style la dafa am ay personnel de sécurité yu mu àndal ñoo ñoo def seen liggéey jël téléphone bi te liñ ko laajee c'était pas jaab ñëwal nga ñu nga débrouiller téléphone bi nga dindi sa yu salté yi effacé ku ñu delloo sa téléphone rek ñoom wax nañ ñu dee démb ñun loolu rek lañ doon xaar soo ko dañoon xaar sax moo fëkkal seelu ñu ñu def parce que lundi dañuy dem lundi suba la yàlla rek a xam ah li am de ñun nous sommes à la disposition de la justice et de la loi woo nañu suñu client daañu dem incha allah wuyu ji li am nag lu war a am rek mooy am parce que lu mënul am da fekk binduñu ko ci téere bi bind nañu lépp ci téere bi yow mal assura bi ñu ko téye muy le dixième jour mbir la cinquante cinq dix la mbir la ba moom yaa des moom il est né sous le signe du 10 te yàlla nañu 10 bi jik mu doon deux mandats de cinq ans mu def fi dix ans xëy na sax daañu ko téye boobaa gawuma ko mais mën na am ñu téye ko mooy loolu léegi nag euh, yawmal asura xam nañu ce que ay jullit lañu bu ku dul jullit tam xam nga ndax religion yëpp ñoo bokk loolu dixième jour am na lu mu doon man de Sonko personnellement numéro 10 laa ko yooyee ndax man mooy suma numéro 10 léppam c'est sous le signe di 10 te loolu 10 bi 5 ak 5 la macha allah xaw ma nag lu yàlla def moom rek moo xam waaye suba tam xamuñu luy am. mais délit yi délit parce que 5 ou 6 crimes ça ne donne pas une grande large euh, marge de manœuvre au juge Le def xam réquisitoire bi xaar nañ parce que parégul ñu ngi ñaan dal mu doon lu pour Sénégal pour ñëpp parce que nous proche jamm Sonko Nous suñu jamm ñun ñëpp nous ma abuser de la parole je vous